ngi dégg mais su ma waxee ba daaneel te waxuma ci kim maam Ndiaye Savon du ma nit xale yi nga xam ne yéenay topp maam Ndiaye Savon di ci daw guddi di ci daw bëccëg te xamuma leen xamoo leen ma déggante wuñ sama dërëm musta teqet ñëw ci yéen maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni bëgg gi ngeen ma bëgg bu ko raw laa leen di bëgg maa ngi leen di permettre waat leneen di leen waxaat leneen muy lan dootuma xullooti dootuma tontooti benn bajo bajo yenn nag bi ma nekkee di xuloo damaa bëgg ngeen xam ko man maa mënul justifié wul wala man maa mënta tëgg affaire naa fekk ba nit bu ma defee dara rek dama koy génn wax su ma paree pare naa ci waaye nag kenn ku la bëgg jar naa daw ba dee ngir ñi la bañ yërëm naa ñi may topp parce que tey ñu ngi reyante ci internet bi guddi di rayante ci internet yi bëccëg di leen wax bëgg gu ngeen ma bëgg bu ko raw laa leen bëgg maa ngi leen di jéggalu yéen ñëpp di jéggalu tous les sénégalais bu fekkee direct Adamo bi dama fa wax lenn loo xam ne waruma ko wax maa ngi jéggalu sénégalais yi di leen jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax di leen wax ni na leen focus rek laa nekk jamono ji nit du mag ndayam te nit boo amee ay doom bu nu màggee dañuy fuddatu te ñaari ñaari kuy mënuñoo bokk mbalka waxi olof laa leen wax di leen wax ne leen maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu képp koo xam ni dama laa def lu la naqari maa ngi lay fekk ba fi nga toog jox la sama juróom-ñaari loxo yi di la jéggalu te yàlla rek tax parce que nit du naagu te ku naagu daagu te ku daagu ñu romb la tax yàlla waruma teral teral gi ma teral ma ne ci internet bi di histoire ma may wala may xulloo waaye damay gor te dañ may sës ba ci mbiru wis loolu rek waral lii waaye du manqué du ñàkk fayda du ñàkk personnalité ndax ku ci nekk am nga ndaw la te ku matul naw la du doon sa gaynde xale yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di jéggalu sénégalais yi encore une fois képp koo xam ni mës naa cee wax moo boo xam ni dafa la déranger xamal ni yeggut sama xol ndax nii ma toll noonu laa toll du jalal leen ndax tukki metti na ci dara ma leen koy waxee sama waa jaa ci ginnaaw ay da ñëwal ay daa ngi ne ci ginnaaw soo paree damay joxe sa numéro mhm. moom xam nga lan mooy liggéeyam mhm. moom Sénégal la dëkk day jënd bagaas di jaay en gros di yóbbu waaye xam nga lan moo tax mu toog siin am na fi un an daa ñëw di liggéeyal doomi Sénégal parce que siin ku ne xam na ni dafa bari ay marché te boo dee sénégalais nga ñëw fi doo xam lu bari léegi moom daa préféré toog fii di yónnee ay bagages am Sénégal di ko jaay en di dugal ay conteneurs di fret mais daa jël préféré boo ñëw te xamoo fi nga woo ko mu la hôtel neel mu wutal la foo nekk neel ñaar macha allah mu wutal la ay bagages yoo xam ne prix bu normal yow mu ngi nii soxlawul ñaar dërëmu kenn. ndax ndax nee naa leen ñàkk tedd te ñàkk tedd moom. képp ku ko ci àddina lu waaye mën na yor ci àddina boo ñëwee gis ko du fëkk sa bët. dëgg nag yow yaay joxe sa numéro da loolu bu nekk ak la cay xew. ak nit tolluwaay nit nag tolluwaay dañ ko koy nangu. dëgg la jamono ji jamonoy maan la. dëgg la. ñun ñëpp dañuy liggéey. dëgg la yàlla ñun ñoo la mag yow. dëgg la ñun ñoo la mag. ñoo ko mën ndax yàgg nañ ci business bi bi ñuy dox. doxoo ma ndeysaan bi ñuy di business yow business la. yàlla may ko loo xam ne dañuy wax waali seet mm-hmm. man leen waali da ngeen koy. nangu dëgg la parce que gis nga maam mm. ku jàll sa xol moo la jàngale te gis nga nit du nekk naafeq dëgg la nit du nekk hypocrite gis nga nit ñu baax ñi borom xol yu rafet yi mm. dañuy wax li nekk ci seen xol dëgg la dañuy yuuxu li nekk ci seen xol mm. mais maam encore une xam dama bëgg nga bàyyiwaat loolu xel. dëgg la àdduna nit mooy def yàlla tijji laayibam. la ci. peut-être mm. mosuñu def la xam. dëgg te ñoo bokk dëkk bi. ndeysaan mais man dama lay bëgg sama yaay. dafa may woo. man laaj sa numéro ma ne ko xaw ma ko waajur moo la jógal. parce que maam ñun dañu ñëw fekk fu dara ñu ne ñun dañ fay def dara. kon ci kaw def dara boobu gaynde moo la koy doon. Mhm. mais ci gaw gaynde boobu maam yow tukulóor ba ñun ay xalpulaar la. dëgg la ne da ko bandum ñun ay buur lañu di ko guma rek ne da ko bandum yaa ngi dégg ñun ay buur lañu. dëgg la dañ nag jamono naqari. Mhm. ba ñuy waxandoo ak nit yi. dëgg la mais nag ku bëgg toll ci benn level bi. Mhm. il faut nga am te jéem bi fu mu toll nii. nekk gaynde moo la ciy jéem. barke Sëriñ Fall mais bul fàtte que ni yow yàlla moo xam xolu jaam yi. dugal la ci la waale dafa xew man moo xew dëgg la yaa ngi dégg mm. kon dañ la koy nangu parce que teel a nangu day waaj ay juma day yomb ay juma dëgg la maam moo xew te maam li ko xewal mooy xolam ndeysaan maam peut être tey lu bëri mi ngi am peut être bëgguñu dugg ci ay détails dëgg la dëgg la comprendre nga parce que amul solo mais yow dañ lay ñaanal ci kaw ci kanam ci lu baax parce que ki ne kaale ñu liggéey ngay partagé di ay xale. loolu ah. tey nga xëy Biosine ànd ak say employé. Mm. dagg leen ñëpp xam nañ ne Biosine un million cinq cent lay jaar. amul xaalis loolu gaynde moo ko mën. dëgg la te maam gis mu ci bàyyi. Mm. ci kaw ci kanam. mais maam gën a la ko gën a la yokk sa muñ. dëgg la parce que business bi moo toll foofu. dëgg la mais gën a la yokk sa muñ parce que mm. ak ñu la ñu ñëw la jiitu ci bis mais yàlla moo la a loolu maam dañ la koy nangul yaa ngi dégg yàlla lafal la cat ubbi la ubbi képp ku nekk day ak bàyyi moom tax a jóg dañoo judd ci ay famille fekk fa dara nekkul ñun dañ fay def dara nekk ay gaynde laaj la ñu dund jaar ci étape maam dañuy damay gis sama bopp ci loolu. comprendre man gis nga fii ma toog nii fii. dara tax ma koy toogaan. waajur moo ma dëgg la mais sama papa de gaañu sama ginnaaw te dem ma. dëgg la comprendre. mais loolu yëpp jot la kon waaye na yàlla tuuti la. mbokk sa paa. dëgg la dëgg la toll yàlla na ko baax a toll. amiin waay. ñëwagul ñëwagul kay ñëwul connexion bi normal gisoon naa sam ma donc mi ngi gis ngeen xam nga nan lay man eh, dama dama ni pour directal pour ambiance pour ñu reetaan léegi damay dagg direct bi ba ñu añ ba pare ci kàttanam fanta boobu nag maa koy xaar bu fekkee dina ñëw dinañ direct waat léegi ñu ngi waajal fan ma joxe sa numéro nit ñaa koy laaj 77 77 613 613 94 94 94 maa ngi nii Chine maa leen fi toogal. waaw bu ngeen bëggee engrais Sénégal am na. Mhm. bu ngeen bëggee fii Chine am naa ko. Mhm. xale buy ñëw Chine tamit maa ngi toog Chine. Mhm. lépp lu ngeen bëgg Chine rek Aïcha yéen la fi toogal. dëgg la numéro bi ma waxaat leen ko 77. 77 613. 613 94. 94 94. lépp lu ngeen bëgg Chine rek Aïcha mi ngi Chine. Ah. fii lay dund fii lay dund. waaw xale bu pare nga yor sa 1 million yor sa 2 millions ba ci 500 mille boo pare parce que fii. toujours dañ laa jàppale te ñun dañoo jàppale may ñu loxo ba dëgg la comprendre kon xale bu pare pour liggéey te liggéey rek tax laa jóg ñu may la loxo jàppale dëgg la sama compte Fatma Lo business la Fatma Lo business nee na ngeen ah, abonné